ñaan nag ful gars yi taxaw si loolu quoi parce que tamit dëgg la affaire tar na te këyit yi ko metti na hôpital tamit faju fa jafe na na gars yi jug daal te saafara loolu loolu la ñuy xaar si ñoom ah. sama wayjur bu góor mu ngi gaañu en 2014 euh, sama wayjur bu jigéen six mois après mu gaañu maanaam ma soeur et ma et mon grand frère pour ma am seen këyit il a fallu deux ans imagine toi 2015 ba nga siy lijjanti benn extrait de naissance wala ñaari extrait de naissance ak di si topp benn certificat d'hérédité pour deux ans. lijjanti kayitu Sénégal dana dana jafe léeg-léeg mais man wax dëgg yàlla bariwul lu ma jafe ndax boo ko jaaree ci yoon wi rek jafewul lool xanaa liñ la ciy fayloo mais à part loolu man musuma jafe yenn jafe yi yi jafe yi boo jaaree ci yoon. donc yaakaar naa ni ak technologie bi fi mu toll actuellement. nit yi war nañu mun a dépasser fii nga xamante ni da ngay ñëw ñuy seet si ay registre wala di seet ay lenn war nga mun a toog sa kër sax par des applications ak ay logiciels ah nga mun a xam effectivement li nga xamante ni soxla nga ko am na sur place wala amul sur place.